salaamaaleykum waaw kay Cheikh ñu ngi lay ziyaara baax a baax di wax ne bu gën a xaraam ak bu uh, gën a woyof man xaw ma ko defe naa intéressé wu ma intéressé wul groupe bi waaye li nga xam ne moo intéressé groupe bi ñu di ko wax daal mooy wax naa ko ci ngoon léegi uh, na nga xam ne lii soxna si def luwaay Sénégal terewu ko tagalu ba mu tag nii def ab ab sarp guccam waay senegal térewu ko yaram mi ne dung ci bitit luwaay Sénégal térewu ko xeesalam bi luwaay senegal térewu ko meesam yi luwaay senegal térewu ko ka demoon ca salon baat ñu koy bës ak ñu koy dëpp ka dippi luwaay Sénégal térewu ko waaye waaye kii nga xam ne nag moom lañu foto soxnaam defi meesam ba mu baax moo taxaw di daggi meesi jaamur taxaw di saaga ay policier ak a xas ngir lan nee na dëkk bii mu dëkk duñ nangu ko fi meesu noonu ko porporo bi waxe loolu nag laa wax ne walla sax ci laa jàngee ab aaya ne alquran moo ne atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum kon débat bi mi ngi ci kii taxaw ne mi ngi dagg meesi jàmbur ak di toroxal ay nit xas ay police ak saaga ne ñuy def kenn mënul tee ñu def ko dama ne na ci boole soxnaam sii meesi jàmbur yi ñuy dagg na ci boole soxnaam col gu bon googu xale waa wax por por wax na ci boole soxna kii na ko ci boole xeesal boobee mooy wax na ci boole soxna kii lii daal laa wax waxuma leneen <laughs> lii daal laa wax defe naa leer na li ma wax. fii waa Safiatou Aman ñoo jàpp benn soxna bu léttu ay mèches ñu ngi noonu di dagg mèches yi. donc euh, mu nekk mbir moo xam ne sëriñ bi da koy tere si dëkk bi ñu fekk ko mu koy dagg noonu. na ko seen seen soppe Seydina Mamad bàyyi Fatima ku mu ko sam bàyyi Seyna boo Roqeya aji ndigal doomi sëriñ seex ndigal jaa ngi nii ñëwoon nag biir kër sëriñ Mourtala si tuddum soxna maam Marème Mbacke mu baax bi waaye nag bi mu dikkee ay mbokkam rek la fekk waa kër Sëñ Touba ñi rek la fekk. te bi mu agsee ñëpp xam nañ ki mu doon xam nañ fi mu bokk xam nañ ne kenn rek mooy bàyyam Serigne Cheikh Ndigal Fall moom Serigne Cheikh Fall bàyyi góor moom Serigne Modou Moustapha Fall. yow xool lamp bi soral baa ngi ni sa maam a ngi nii barke sëriñ Touba yow fu la neex daagul si biir Touba boroom ndigal. ah Maria kontaan naa <laughs> sama xol sedd yow jërëjëf Balla Issa Issa billaay baat lay sibli sëñ Mbàkke maar ba eh, jaale batu nag mën naa wiroo ko gënal ay xasida moo ko ko gënal de baat lay sibli sëñ Mbàkke maaram yàlla yàlla bàyyi ak sëñ Muntaxa nga wéet jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ni day soppi bindum yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mu koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi col gu yóodi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 dëgg la <laughs> de ñooñu naan di daane yaa ngi ñii bi sama xarita de waaye ñi bàyyi ko rek jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ni day soppi bindu yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mu ngi koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi waaye doomi Cheikh Sow bi ji am personnalité waaye te maanaa tey sëriñ kese masàllaa sëriñ Kaba la Yacine Fall mu ngi daan denc la gànkeel bi rongoñ ci damel maa joor billaay bàlle si bi sëñ Mbàkke maar ba jaale ba tudd mën naa wiroo ko gënal ay xasida moo ko ko gënal de bàlle si bi sañ Mbàkke maar yàlla yàlla bàyyi ak sëñ Muntaxa nga wetti lu jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ni day soppi bindum yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mu koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi ah Maria kontaan naa bu baax nag <laughs> madame Ndonga sama xol seet na guy ci yow jërëjëf bàllay sax sa sëñ Mbàkke maam tàngaloo tàngam de sa bàyyi Serigne Fallou Cheikh Modou Moustapha sa bàyyi ballay sa bu sëñ Mbàkke maaram mosoo wéet jërëjëf ballay sa li bëggut bur bi ballay yi nga xam ne day soppi bindum yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mu koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi waaye ati ati ati ati ati ku ko nar fekk ku ko nar yàq yàlla bu ma ko fekkee yàq paase na sax yaaral baax jërëjëf Mbacke ay waay jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ni day soppi bindum yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawara mu ngi koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi. i soxna sëñ bi la sëñ bi jiite xuddaamu soxnaam a ngi nii lii ci koor gi la woon ak kay def tey baasam mu ne muut wàcce sa baam def benn kër ci. gis nga gaz bi mu def ci dënd bi gis nga gaz bi mu def ci dënd bi entreprise bi mu teg foofu noonu nga xam ne gaz yi da ngay jàkkaarloog wéy. sëriñ Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad dana ko yëkkati mu jëm ci wàllu dëkk bi ak li ci biir dëkk bi te lépp di euh, xotti wormay dëkk bi di Touba ca euh, loolu euh, ku ne xam ne ne taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad amoon na ko ci. mu jëm ci wàllu sàmm euh, li nga xam ne mooy ndono li waaye tam defaraat jikko yi nga xamante ne bii euh, moom la yonanti bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bi ko yàlla ni ngir mu defaraat mottaliwaat jikko yi rek moo la woon te ku ne xam ne ne dëkk bi fi ñu toll jikko yi yàqu na waaye itam nag jëmm itam lu ci bari yàqu na. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp nuyu bokk taalibe rawat nag bokki murid yi dëkki Touba xanaa di wax wax ju gàtt rek te tënk ko dafa am jamonoy dëkk bi am po dafay bari woon lu mel ni tëgg ak fecc ak kar ak naan ak yu ñoom ba am jëmmi jamono benn julli ajjuma boo xam ni sëñ Abdou Khadir xamul lu muy julli ndaxum tëgg ba mu noppee waxtaan ceeg sëñ Abdou Lahad sëñ yëkkati kàddam daal di wax ak njabootu sëñ Tuubaa gépp booba ñi fi nekk sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir sëñ Soyibu sëñ Mourtala ak moom ñoo fi nekk moo tam sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moo koon wax ci ak ñoom doo ko yëkkati kàddoom tere la muy tere muy dox ba nëgë ni loolu moom jeexoon na fi tàkk bu jeexutoon wàññiku woon na ndax euh, lu yàlla tere woon de taxul nit ñi ba ko yonante bi tere ko taxul nit ñi ba tere taxul nit ñi sëñ Tuubaa tere ko nit ñi di nëbb mu ne kon alhamdulilah gannaaw ñee tere na ko waaye ñu ngi koy nëbb rek naa ci yàlla nag dañoo weesu nëbb dañ koo fisal léegi ba fam nekkoon lu ko rawaat am ci dëkk bi te loolu nag day xotti arma carte gi mi ngi ci dëkk bi sàngara si mi ngi ci dëkk bi toox mi mi ngi ci dëkk bi te ñoo xam nañ fa mu ne kuñ masaa jàpp fii buñ la yóbboo boobu gendarmerie fi nekk gendarmerie dañ la fay téye ñetti fan yóbbu la njaareem bu fekkee da ngaa màndi ñu tëj li 45 jours booy génn ñëwaat la bu nel dem tox ñu tëj la fukki fan wala juróom benn fan nga fay 3000 ñu doog laa bàyyi tëgg moom booba kenn defatu ko daa tegoon ci ci rond-point bi ay nit ñoo xam ñooy saytu lool lii nag nga xam ne sëñ bi da koy tere te lu luy mën a nit womat nit yóbbu ko sawara léegi lool kon ku ne war na koo bañ. football kenn terewu ko loi terewu ko ci lañu wax ñoom waaye sëñ bee koy tere dëkk bii di Touba parité fa ne ñu ngi koy def ci àdduna bi parité amul Touba lu tax kàddu sëñ bi maire yi bi ñu koy wote maire yëpp dañu ko wote Touba wote wuñ ko ndax la kàddu sëñ bi. li yàlla mooy sëñ bi Touba nag ba noppi nekk nekk nekk nekk titre foncier bi sëñ Touba li mbooloo mi bëgg kàddu sëñ bi rek mooy mooy kàddu ndax mba mbooloo mi kàddu sëñ bi lañ moo tax seen luwa kàddu sëñ bi kon mooy luwa luwa mooy lu mbooloo mi tënk ànd ja loolu mooy luwa ci ñoom mu ne nag sunu luwa mooy kàddu sëñ bi ne ci dëkk bii nag di xotti ormay satiri sëñ Touba bëgg a sobantel kàddu sëñ Muntaxa bëgg a sobantel kàddu njaboot sëñ Tuubaa te nekk ci dëkkub sëñ Tuubaa loolu dëgg yoon lii nag xilaaf ak sëñ Tuubaa la